xam nga rencontre bu mel nii euh, fii si biir éducation nationale euh, mun naa wax ne que euh, c'est rare donc di rafetlu en tout cas le fait que tey xam nga ne ñu ngi si pandémie bi pandémie bi bi mu commencé ba léegi et en même temps ñu ngi si vingt et unième siècle laaj na nag tey ñu woo leen won leen que partout en tout cas ñun si biir éducation nationale defar nañu ay loo xam ne ay programme yu bees la

parce que comme am nañu suñu canal éducation canal éducation boobu nag si TNT la nekk ñu indi ñeenti junni décodeur pour mun ko jox inspecteur d' académie yi ànd ñëw nag ànd ak suñu partenaire yi dégg ngeen léegi waa Sonatel li ñu wax waa ADE ñu ngi fii waa ARTP ñu ngi fii donc ñun ñëpp ñu ànd xam na nag que éducation nationale moom moo loo xam ne war nañu seet su dee élève bi mun na jàng si biir classe bi lu baax la su dee mënu ko mun na fu mu nekk si këram am cours yi su numérique dem numérique euh, am cours yi am exercice yi donc loolu moo numérique lu am solo lu am importance fi ci ministère de l'éducation nationale bi ñu ngi développer li ñu wax présentiel mooy nga tok ci sa classe professeur bi dina jàngale mais ñu ngi développer lo xamné aussi moy le numérique numérique bobu nak mëno ko def fekk amo ay ordinateur amo ay logiciel amo ay programme yu bees donc lepp lañu doon woné tay pour que nit ñi xamné ne si wàllu pédagogie amna ñu légui outils comme ça xalé bu nek fi ci biir Dakar mun na am accès mais xale aussi boo xam ne mu ngi fale si Fuladu si Sédhiou mun a am accès yoo xam ne c'est cours ñoom ñoom nekk fii mais yemuñu foofu mais comme am nañu aussi ay téeméeri junni fonctionnaire bari na laaj na aussi ñu jéem a leen gérer autrement que ñooñu ñu jéem a seet fu ñu mënta nekk pour que affaire yi mun a gaaw pour que seen documents yi mun a gaaw ñu wal leen si wàllu administratif am nañu encore ay outils yu bees donc loolu moo tax tey mun naa wax ne rencontre bu am solo la numérique bi. am baax na si wàllu pédagogie si wàllu également nan la ñu gérer suñu élèves yi